Imam Sall ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay bu baax. waaw nga nekk euh, Imam njëkkee Oustaz Taib Socé gi ginnaaw arrestation euh, jamono ji yéen euh, lan mooy seen taxawaay. waaw ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi alayhi salaam. di ñaanal sëñ Mamadou Mountakha yàlla may ko kàttan ak wér. Hmm. ni nga ko waxee li ko dal natt la. Hmm. waaw taxawaay bi ñu ci am nag mooy euh, ñi ngi def ay tournée actuellement nii euh, ginnaaw bi ñu créé benn collectif collectif national pour la libération des oustaz Saïd Socé mhm. euh, ñi ngi war a def benn tournée war nañ dem ci sëñ Muntaxa Mbàkke bu ñu fa jógee dem ci xam général de Tidiane xëy na moom dafa génn temps yi ñu moo tax calendrier bi ñu taxaw sëñ si Muntaxa moom itam dafa lu xaw wax mhm. actuellement ci Dakar ñi ngi gisante ay kilifa mën naa ci lim ay nga xam ne ay xaritam lañ parce que chaque moo leen di defal conférence fële ci Linguère mhm. ak yeneen autorité membres ñaa ñoom ñenn ci ci ci ci ci gouvernement bi conférence de presse bi def nañ ko mhm. pour defal ko ay ket nag actuellement nii xam naa ci une semaine lu mel ni samedi wala dimanche mhm. boo xoolee seen TV da du ñàkk da Iran daw def ko benn ket di euh, préparer benn téléthon pour Oustaz Taib Socé. waaw voilà benn téléthon boo xam ne dina am seen TV defe naa bi daal lañ ko jàpp. Ah, est-ce que est moom d'accord na ci loolu. non moom d'accordutoon ci yooyu ndax ne moom bu fekkente ne nit ñi dañ koy sàkku ndimbal day mel ni moo def. Hmm. mais collectif bi ñoom ñoo loxoom ne ko loolu mënul ñàkk. ñi si nekk nag ñii la muy euh, Fadel Guèye Fadel arab yooyu ku miin monde arabe la mhm. mooy président bi euh, Mame Makhtar Gueye ci biir di ci jàpp Iran Ndaw noonu ka salika imam yi nekk ñaari tali ak euh, ay quelques personnes yoo xam ne ay ONC la ñu yoree fii mhm. ñu itam ñu ci biir depuis ñu door ko ba léegi mhm. euh. def nañ conférence de presse fii ci institut islamique ci bi ñu korité ba am quatre jours rek waaw bu dee ci wàllu wér-gu-yaramam waaw bi ñu ko seetee nag wax dëgg yàlla man maay maay premier Mm-hmm. waaye fekk naa ko ci jàmm mu ne ma amuma benn problème mm-hmm. lii bi foo dossier bi ñu réglé ko benn yoon mu jeex mm-hmm. waaw euh, sant leen yàlla après man maa ngi ci jàmm dara daluma euh, dinañ waxtaan ñu seet nu ñuy réglé dossier bi moo gën ñi nga xam ne ñoom laa joxoon xaalis bi ñu daw ñu lancé mandat dara ñu jàpp leen mu jeex kon daal ma nga ma ngay toog waaye ak gëm yàlla waaw ñu nekk ci gëm yàlla boo nekkee kaso ñu tuumaal la te liñ la tuumaal defoo ko bu boobaa du lenn looy jaxle mm-hmm. bu def nag su boobaa ngay nekk di tëj jërëjëf jërëjëf imam ñu ngi sant baax di la gërëm baax na jërëjëf Ousseynou Ndiaye muy 24 actu mm-hmm. ñu ngi sant baax di gërëm ci seen liggéey bu rafet mm-hmm, jërëjëf jërëjëf